général des Tidianes di xam ci biir yéenekaay bi de musiba yi nekk ci biir Sénégal gi dong moo tax suñu borom teg ñu nattu bii Sud Quotidien ubbi xët bu yaatu jagleel ko déclaration xalif général des Tidianes bii Serigne Babacar Sy Mansour yàq lu mel ne xamee député yi nekk ci assemblée nationale ne ñoom ñëpp kenn xamu ci seen bopp lan moo leen yóbbu ci assemblée nationale dañu bañ faa nekkee xiiroog ŋaayoo xastante ak dàggasante kenn ku nekk di yekk moroom lu mel ni

Serigne Mbaye Sy Mansour mi sant askan bii ñu dem vacciné ji Serigne Moustapha Sy moom njiitu Moustarchidine wal Moustarchidaty gii wóoluwul Macky te gisul lenn lu dul Macky Sall mi génn ci palais bi li moo tax mu annoncé coalition bu rëy diggante parti pur Pastef Taxawu Sénégal PDS ak yeneen parti nga xamee am nañ doole ci opposition bi yépp te coalition bi lenn dong tax a jóg moo tere Macky Sall mu am troisième mandat direct news di ko dëggal ne grande coalition

dañu de moom wuyuwul grande coalition bii Serigne Moustapha Sy wootee ndax jàpp na ñii xeex système bii ñoom ñoo bëgg a dugg ci biir système bi naka la mën a seetaane Ousmane Sonko Khalifa Sall ànd ak waa PDS yi nga xam ne même système la ko bu Macky Sall bii bugaan ngay dañu di xam ne ci biir yéenekaay bi dee wooteeg Serigne Moustapha Sy bii dañ koy xoolaat ndax bu ñu moytuwul opposition bi fii lay jaaree tas abadan Les Échos yéenekaay moom bi ne gis nga nguur géeg wax ko dëgg lii laa gis xalif général de Tidiane wax ci wàllu góor jigéen yi réseaux sociaux yi ak jigéen ñi seen comportement gu ñàkk teggin gi nekkee ci réew mi ne lii dong moo tax mbas mi dugg ci biir réew mi teg ko ci table bi teg ci def ay révélation yu rëy tey xam nag yoon rek la xaar mu def liggéeyam ngir mu mën a xam fu muy teg tànkam Serigne Moustapha Sy ci biir yéen kaay bi xam ne jëf ju ñaaw gi ñu def ca biir Tiwaawan mësul am ci histoire wu Sénégal wallaay président parti pur bi di xam ne ci biir yéenekaay bi ne gis nga Macky Sall mii nag bu yóbbu mu waajal ay bagaasam te xam ne élection présidentielle yi ñu jëm danañ taxawal grande coalition bi séq Khalifa Sall mii Ousmane Sonko waa PDS ak waa parti pur te gis nga ñii bu ñu mënul dara ci Macky Sall mii man maa jël sama position jàkkaarloog Macky Sall bi génne ko ci palais bi yéenekaay bi di xam ne de Serigne Moustapha Sy de kaful kafluwul toog baykat yim ñaari dëggam teg ko képp koo xamante ne ni bokkoon ci complot bii ñeel su lig néewuk Baye Katim Touré bii Serigne di xam le ne képp ku ci taq na génn goo ci coow li di rasulillahi dëgg du weesu nopp si Demba Xureja guddal fan seul contre tous Baye moom coowam lii dana leer nañ wala foo leen tourner rek gis vidéo yi ah lii na waay mbas